waaye leer na ma ne jot nañoo jokkook seeni naataango yi nga xamante ne ñoom la ñu nar a bokkal liggéey gi di la nuyu di la sant di la sant ñaari yoon tamit di la sant ci déplacement bi nga def ci bi may def sama prestation de serment ngir gën a màggal bés bi gën ko taaral te su la sante mel na ni peuple sénégalais yëpp sant na la ci ndax seen bés la woon di la sant tamit ci dalal gi nga xamante ne dalal nga ñu ko fii Gàmbi te du rek teertuñu ak lu mu àndal waaye fi ñu jaar yëpp ci yoon wi gis nañu suñu mbokk yi lañ fi fekk si suñuy xarit lañ fi fekk si ñu bokk ci ñun ñoom lañu fekk si li nga wax sànq balaa nga koy gën a rek nga deltuwaat gannaaw ci li jiitu maanaam bi nga waxee ne fii rek laa mën a ñëw ci rencontre officielle ci ndaj gu officiel ñuy waxtaan ci olof bu dul woon kalaama gi ñuy njëkk a làkk ci bu ñu doon liir communiqué bi li ko waral ci gannaaw gannaaw kon duñu wax Gambie wax senegal dañuy wax Sénégal bi mu doon benn réew waaye alhamdulilah gannaaw bi askan yi bàyyi lool ci gannaaw bañ ku leen féewale doonte ñaari dëkk la ndax noonu la ko yàlla dugale ci histoire ak ci ñi nga xamante ni ñoo ñu fekk si bu mel ni ñi ñu bëggoon xaajale waaye askan wi continué doon benn bañ a xool frontière bañ xool drapeau xam ne ni nga ko waxee ne say rakk ak ñeneen ñi say mbokk ñoo nekk ci beneen côté bi fii tamit ay sénégalais rek fi nekk fee ay gambien rek fi nekk kon frontières yi amul solo ci ñun drapeau yi amul solo ci ñun li am solo mooy ni askan yi dugalante ak nu ñuy jëfalante kon bi ma la santee ci ñaar yii dama teg rek cant gi askanu senegal ak man mii di leen man mi leen jiite tey di sant askanu Gàmbi di ko jaarale ci yow mi nga xamante ne yow la fi yàlla teg di rafetlu tamit taxawaay bi nga am ci relation Sénégal Gàmbi ba ku ne xam ne fu mu tollu tey benn ci rek lañ ci am te man mii noonu laa fa yéene taxawe wax naa la sànq ne li taaral diggante bi li ko rafetal li ko gën a dëgëral fi ci président Macky Sall mi nga xamante ne maa ko fi wutu emoon foofu rek laa mën a continuer dem ci kaw waaye mënuma def lu ko yées te yàlla dafa dogal ma egg ak projet boo xamante ne projet panafricain la balaa mu doon beneen projet mu doon loo xamante ne ñun gëm-gëm gu xóot la ci ñun ne Afrique solidarité ak fraternité bi mu doon wax ci bés bi nga ñëwee may prêter serment di wax fraternité renouvelée di wax solidarité renforcée loolu gëm-gëm la goo xamante ne moo lañu ñu mooñaale projet bi tax sénégalais yi d'accord ak ñun ba tegu ñu ci kaw réewu Sénégal yaa wax sànq ba wax ne sa mbokk moomu mën na am sax man la wooteel waaw xam naa ne man la xam naa ne man la wooteel ndax li koy firndeel ne xam naa ne gàmb bi gañewuñ ma fi kon lii riir Sénégal moom la ñuy dégg Gambie te lii riir Gambie moom lañuy dégg Sénégal kon président Barrow xamal ne frère bi nga amoon Sénégal moo fa nekk tey xëy na jëmm gi gën naa tuuti waaye dëngar gi gën naa dëgër ndax fi Sénégal taxawoon taxawee ko ci relation digganteem ak gàmbi mënul soppeeku mënul changer dafa mën di gën di law rek di gën di dëgër di gën di dem ci kaw di daw gën di dem ci kanam te lépp loo xamante ne suñu cër la ñu war ko dox ci dëgëral relation yi diggante Sénégal ak Gambie ci dëgëral diggante euh, Sénégal ak yeneen réew yi Afrique taxawaay boobu dañ ci xar suñu tànkatu bay doxal ko ba mu mat sëkk sëkk sëkk dara du ci manqué te di la tàllal loxo ci taxawaay bi nga xamante ne moom nga fësal bi nga toogee ba tey te mu gën a jur jàmm gën a jur lëkkaloo diggante Sénégal ak Gambie taxawaay boobu xam naa doo ci jóge ndax lépp loo xamante ne dina la ci gën a soññ gën la ci jàppale gën la ci ñaax ci ñun suñu côté ci doxe ko ci waxe ko ci jëfe ko dinañ ko def pour yow nga gën a sawar gën a am taxawee boobu gën ko taxawee gën ko baral tamit